ci programme bi nga xam ne tëral nañ ko nguuru Sénégal ma ngay tëral ab plan ngir rek daal di xeex lépp luy mënd. ndax bu njëkk nawet li ci ëpp yëngu-yëngu bi ci nawet rek la daan am mooy mois de juillet mois de août wala septembre ñuy ne dañoo bëgg léegi di anticiper ndax lim ñuy dimbalee mooy ki waajal moom. dafay ëpp chance ki nga xam ne dafa bàyyi ba mu ñëw parce que waajal day am temps wu gis la ca dëng la jubul mu mun di jubbanti te di mun di évaluer. ki nga xam ne moom mooy ministre gi yor wàllu googu daal dinay dem nemmeeku bërëb yi nga xamante ne nii foofu la lépp luy ndoxum taw war a dajaloo ngir rek daal di saytu fan la liggéey bi toll. tey bi ñu ñëwee def nañ visite pour xool fan la état d'exécution bi toll dem nañ ci station wu Kër Ñang euh, xool liggéey bi ak li nga xam ne nii moom la projet bi jël comme euh, objectif wu renforcer ko yokk capacité bi. bu fi jógee dem nañ Ngélémou. ci xool bassin bi nga xam ne war nañ ko fa taxawal mais aussi station de pompage bi bu ñu fa jógee dem nañ Kër Kàbb nga xam ne bassin la boo xam ne li ci liñ fa waajal mu ngi toll ci 60 hectares yaakaar naa ne bassin la boo xamante ne bu yembee dina am lu bëri loo xam ne ci ndoxu Touba dinañ ko mën a stocké foofu mu wàññi jafe-jafe ci wàllu inondation su weesoo pexe yi nga xamante ni jël nañ ko ngir xeex lépp luy mënd nguuru Sénégal fas nañu yéene taxawal ay forage ngir rek ñu daal di mën di xëcc ndox mi nga xam ne moo yokk ci nappe phréatique bi. ci wàllu projet bi aussi jot nañu xool forage yi nga xam ne nii defar nañ ci cadre projet bi 20 forage de rabattement yoo xam ne nii day jàppale Touba ndax gis nañ ne Touba am na ay zone yoo xam ne nappe bi day day day day remonté. donc pour fexe xool nu ñu defee rabattement wu rabattement wu nab bi donc aussi xool yan solution lañ mën a envisager mais teel ko waajal. ministre bi daal di nay woo acteurs yi ngir rek ñu daal di gën a ñaax askan bi ci solo si nga xamante ni nii toppatoo kanaal yi soxla na ko ngir rek ñu daal di gën a moytandiku li ci sotti ay mbalit.